wala ko ko man rek a ajjuma bi nga xam ne mooy bisu suba bi di bi jëkk ci at mi te Seex Muhammadul taxa di ci ubbi jumaam jam doon tabaxal soxna jaaratullahi Mariama Buso donte wóotewu ko ngir ne jamono deme waaye ma nga fa war koo jiit war koo ubbi suba mais sàkko nag ñun ñëpp nu ànd jàngal soxna jaaratullahi mariama busa addiya laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimina junni yoon tëje ko xasida giñ ko tënke xasida giñ tënke la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin danaa ko boore ci lii ñëpp a gis ko kon daal ñun ñëpp nañ maase def ko jox ko soxna jaare addiya fasal ci nag Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi lool te wér santale ko ci yàlla ci lim yéene woon a na soxna jaara jumaa jooju mu sotti ba bët ko ubbi sant la ko ci yàlla sant la ko ci seexul xadim ñaanal ko ci yàlla yàggal ko fi lool lool lool ba lim yéene liggéeyal sëñ Tuubaa lépp mu def ko ni mu ko bëggee kattan kàttan ak wér te ñun ñëpp ñu ànd ceeg moom te sëñ Tuubaa nangu lépp jërë ngeen jëf